mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër fooy fanaan mbër gàlle internet yi ñuy suivre sur Kewel Info ak Lamb Diaspora di leen nuyu bu baax di leen ziar di bëggee képp koo xamante ne yaa ngi ñuy suivre di bëggee di nuyu bu baax a baax suma sëriñ Amaolaya notre responsable moral muy daatul Moussa Sy di nuyu Moussa Sy daat muy Seydou Mouhamadul Moustapha Sy di nuyu mam Cheikh suñu capitaine ak maam Babacar di nuyu nag kilifa diine yëpp tey nag ñu ngi fii si Dangu ñu seet ki nga xamante ni champion la gannaaw ba mu bëree ci combat moo get Evans yi muy ki nga xamante ne muy doomu Dangu. Ah, bien vrai que nag ñëwuñu ci combat boobu noonu ndax critères yi nga xam te ne moom la ñu tegal que ni 4 jours la ñuy la ñuy dugal combat bi moo tax ñëwuñu ci li nga xam te ne moom mooy ci combat boobu noonu Doomu Dangu mu bëri ki nga xam te moom mooy Jordan mu nekkoon combat bu am tension combat boo xam te ne ñu bari dañ ko doon bàyyi xel ndax seen communication dañ koy bàyyi nag mu nuyoo am na mbër yu mu defee ñu waxtaan ci loolu maa ngi leen di. waaw ñu ngi leen di siyaar ah, Fatma Dia Kewel Lamb Diaspora ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu àdduna aussi ñëpp ah di leen dalal. Uh-huh. wax naa ko léegi dañuy ñëw ci li nga xamante ni sa combat gis nañu pendant avant et après seeni communication yéen ñaar mais dañuy ñëw ci li nga xamante ni muy combat bi yàgg na trop après xam nga ñii ne yàqu na ñii ne yàquwul noonu la fexe fexewaat ba combat bi taxaw. waaw première bi yàquwuloon ah cas force majeure moo moo amoon ci ci combat bi ñu pousse ko parce que deuxième cas Covid bi moo ñëwoon ñu pousse ko et aussi après aussi bi ñu ko ubbee làmb ji gisoon nañ ne aussi oh on nañ promoteur yëpp ñu def sauf suñu promoteur moo demul woon te suñu contrat ak ñoom am na fu mu yemoon ñoom xam nañ ñun aussi mbëri mu concerné xam xam nañ aussi bi ñu ñëwee pour reprendre at bon ñun amuñu woon combat ñu ne pourquoi pas ñu toog waxtaanaat ñu trouver consensus aussi ku si nekk daal la nga waxoon aussi nga jëf ko rek waaw. Hmm. après combat bi demee noonu déggoon nañ tamit sax ay waxu mbër yu ci bari nee nañ ñu dolli xaalis parce que xaalis bi ñu joxoon dafa jeex affaire yooyu noonu mais loolu noonu après est-ce que li ngeen doon li ngeen doon kaas mu ngeen ko am. ñan ñoo doon kaas loolu man kaasuma woon loolu de man li ma war a wax promoteur bi ñoom xam nañ ñun xam nañ wax dëgg yàlla bon mais daal comme que përi nañ ko ba pare rek tey jii sant yàlla daal waaw yeneen li si des ay ay ay ay la. affaire dégg foo ko déggee. yow sa première communication. suma première. yi dañ déggoo li ma la xam dañ toog waxtaan négocier ko aussi xam nga ñun ñu am lu ñu leen wax ñoom aussi ñu am lu ñu wax waaw. Hmm. après bu ñu ñëwee tamit ba tey ci combat bi gis nañ yéen ñaar seen communication ñii ne yéen ñaar daam foo leen mës a jaar après ñu gis combat bi yéen ñaar seen communication mu ne comme si si que ni yéen ñaar. dafa am lu xew seen diggante lan la woon da ngeen doon jaay combat bi wala lan moo xew. waaw non combat la woon rek fii moom signature moom gis nañ fi signature bu nekk signature bu nekk am na fi mais comme ni rek boo xoolee tey jii combat yi amoon si bari na et ñun suñu combat bokkoon na si si combat yi xam ne moo gën waaw moo gën a ràññee parce que ni ñu ni ni ñu doon kii la ni ñu doon communiquer ni ñu doon communiquer bon moo taxoon aussi suñu combat ñu ñu gën ñu ñëpp bàyyi si xel daal non ban problème am jotee ñu dara jotaan ñu sariw ñu moo ngi si bi man ma dëkk Tëngéej. communication moom mu ne da nga koo joxul cër cër boobu lan la daam loo ko wax lu ko touché wala. non ban ay woon rek. comme ko touché ndax Jordan meroon na de. waa no man bu meree man moom masuma mer wax dëgg yàlla signature lañ nekkoon ñuy waxante mu may wax ma koy wax. waaw ay na ay roubé la ah, wax dëgg yàlla suñu grand frère la bu dee aussi mas nañ ko wax loo xam ne aussi durant combat bi yëpp. daf ko touché wala daf ko metti ñu ngi koy jéggal bu baax di ko wax ne lañ doon def pour combat bi woon rek waaw mais nag nekkul woon dara yu dëgg quoi. ñu ñëw ci cadre d'entraînement gis nañ ni macha allah yokku nga macha allah di ñaan yàlla mu gën a yokk état physique beeg loolu yëpp jot Jordan moo ko waraloon wala dafa am ñeneen ñoo doon préparé ci côté préparation bi. mën nga waaye yokku ma dara man nii laa toll ah. dañu dañu liggéey rek ah ànd cherche xam nga ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib ku ci mel bi yëpp xam nga Mohamed Vieux Demba Amina ñoom ñëpp ah suñu coach yi aussi Baye Ma Ndiaye Agine Malick Ndiol boxeur Albouri xam nga ñëpp daal ku ci nekkal li si ci war a def aussi suñu partenaire écrit yi góor gi étudiant Ngañ Ceen Caaka Fay bandi 40 ans Kani Sadam Tidiane Fay Mamaya ñëpp gàmmu gay moo jaxate ku si nekk daal def si li nga war def rek. non chaque jour noonu la ñu préparé ñun combat bu ñu préparé combat dañu ànd liggéey mais combat bi li mu laajoon rek loolu la ñu yóbbu esaat. Mm-hmm. ba tey sa communication wax nga ak moom ne maa ngi gërëm Eumeu Sène da ko doon ruubee wala bataille psychologique la woon wala lan la woon wala Eumeu Sène daf la conseillé wala daam foo leen jël. <laughs> Eumeu Sène mën naa bëri ba mu des que quatre ans wala cinq ans de muy jëndee leneen pikin loolu manul nekk nañu wax lu lu yéenu maanaa am na yoo xam ne moom xel sax maanaam su ko déggee war na xool ndax man na nekk wala manul nekk Eumeu seen nag suma frère la suma grand frère la ñoom aussi ay relation entre frère et grand frère waaw mais Eumeu Sène lépp lu mu am pikin moo gënal te man waa pikin laa doon bëril yàlla xam na ne xalaatul loolu sax xam naa loolu te man yabuma Eumeu Sène sax ba koy oo pour mu jàpp ci combat bi signature lañ nekkoon tamit <laughs> si la ñu nekkoon rek mais wallahi agim dara ëmma seen nekkul ci combat bi barki yonent bi bu ñëwee si combat bi ñu gis ni sumeeku nga moom Jordan sumeeku maa ngi koy wax sànq ñi ne dafa volumé ñu ne sa état physique moom moo gën a baax du samay wax nag ah. ah nan nga gisee état physique Jordan ba pare. waaw mais si am na doole liggéey na liggéey na parce que combat bi moom combat bi duré un an combat bi un la duré. nit mënoo jël combat bu duré un an te boo si parewulee rek danga nga say say mbokk bu la si feebar dalul dara dalul la ci waaw si liggéey na liggéey na man tamit liggéey na mais yàlla mooy may ndam ah. suñu borom moo may ndam rek du du leneen du sama njàmbaar du ak yaafusam aussi. Hmm. te bu ñëwaatee si combat bi ndax xam ñun combat bi fekkuñu fi ndax dañoo kii woon dañoo xawoon a boycotté parce que gars yi dañoo wax ni 4 jours la ñuy toog pour dugal vidéo yi moo tax jëluñu ko mais tey bu ñëwaatee ci combat bi nga féete gauche moom mu féete droite ab sifflet ñëwaatal ci combat bi nan nga ko bëri. yee mooy comme ni ñu wax rek combat la boo xam ne am na lu ñu concerne am na lu ñu indi yee boo xoolee ñun changé ñu sax li ñu daan indi dañ ñëw attaqué def lu ñuy def ci biir combat ñu bëri def ay erreur mais sant yàlla aussi. mooy première songa bi ma def ah loolu la waaw songa bi dafa des quoi parce que li ma bëggoon am yëpp awma ko waaw mais alhamdulilah comme que rectifié wu ñu waat ci biir bëri bi rek. Mhm. mais boo ñëwee ci song bi da nga doon <laughs> doomu dàngu ak daw loolu ku koy wax. man bi baaxul. làmba ji maa si ëpp kaaw man maa fi def set kaaw. lan parce que làmba ji foofu la waroon jeexee moo tax. ok mhm. ñu ne 3 tey nga bëri ak moom bu bëri suuf wax naa la ko sànq nga surprendre ñu baree bari donc koo entraîné wala la nga doon woon ndax am na fu mu la àgg foo xamante ne bu doon yeneen i mbër doomu daa nga na mais tey mu am fu mu la àgg nga jug xam nga bëri ak moom ba daan ko. Mm-hmm. fa mu la àgg après fa nga ko fekk daan ko. waaw man xamoon naa ne su may entraîneur sax daan nañ ma wax loolu ku si mel ni Baye Mandiaye daan na wax làmb ji dina am booytu dina am 3 appuis wallahi agim doon na ma wax loolu ko ay ñun doon nañ préparé wu ko loolu et aussi taay ñaari taay yi xamoon naa ne man li ma doon bëre mooy diggante jum jumbu xam jëm si web bi man foofu laa waroon bëre te boo xoolee combat bi si diggante boobu la la jeexee moo tax ñun bi ñu àggee suuf dérangé wu ñu sax non dérangé wu ñu ah na def na def na dem non du may àgg suuf moom moom loolu la gis xam nga image yaa ngi fi ah bon yaakaar naa ne moom manager am père Max Mbargane la ñu koy nuyu au passage dañ dem def li leen yoon may rek boo xam ne dinañ gis kat appui non déggoo li ma xanaa man xamoon naa ne combat bi xaw ma day am trois appui ou mais xam naa ne combat bi foofu lay jeexee te xam nga làmb dafa xaw doy waar aussi te suñu teetal rek xamoon nañ ne combat bi dina am trois appui. waaw du mystique si teetal rek loolu day am ci combat. ci teetal gis nga xaw ma gars yi dinañ ko jël wala duñ ko duñ ko jël ci biir combat bi ah avant combat bi avant ñu siffler combat bi ma nekkee sama préparation musique ci géew bi def naa trois appuis man mm-hmm. xëy na gars yi dinañ am image def naa trois appuis ki ma doon sang ma yëkkati loxam loolu trois appuis mënuloon ñàkk ci ci ci ci combat bi man def déggoo li ma la xanaa def naa trois appuis ci combat bi. avant ñu siffler def naa trois appuis am ku ma yëkkati loxoom donc loolu mënuloon ñàkk ci ci combat bi aussi. xamoon nga ni nu mu dem da ngay def ñàkk wala déggoo li ma la soo soit que day nekk ci moom wala ci man rek waaw mais jël la mënuloon am sans trois appuis am ci combat bi. après ñu gis ne ci situation boobu. Mhm. après ni nga ko daanee. mooy lan ban dama dama continuer action rek boo xoolee tey jii moom moo ngi teg pied droite ma teg pied droite peut être li mu warul woon njëkk nangu mooy man may jaar si flanc am. boo xoolee man ci flanc gauche am foofu laa jaar mu may plaqué aussi boobu man maa ko gën a àgg si moom boo xoolee dama ko taf wéeru ko rek mu jaaxaan. léegi moom fi àgg tey bu yow yow lañ fa àgg yow moom yow nan nga a def pour génne foofu chute. moom bari na bari na bari na peut être moom erreur bi mu def carrément mooy tey jii bi moom mbaaree dafa waroon désaxé tuuti eh, mais boo xoolee moom amul fu ma jàllale parce que fi ma war a jàllale moom moo fa toog. ñaar rek moo fa mënoon nekk loo xam ne moo gën a yomb te bërikat yi xam nañ ko soit que day deseg si tuuti jël suma loos naj ma jàpp suma gaño damay def trois appui wala ma tàlleeku ñaret xam nga ne mën a wax wala mu deseg si carrément téye suma loos ak suma gaño wër ma ndomba comme ak Sa Thiès ak Moussa Ndoye ni ñu bëree mais malheureusement moom làmb moom booy daanu noonu da ngay nekk cuune quoi loolu daal na mbër mu nekk. di la félicité waat bu a baax ndax wax dëgg combat bi bëre nga bëre bi daan nga daan bi Jordan tamit ñu koy encouragé ah ndax mbër la te am na ñu mën a bëreel doomu daangu bi mooy nekk sa ñaata victoire. 17. àgg na de. yàgg na <laughs> gars yi bañ mais accident tax nga bëgg dugub pikin Pikine duggaat bien vrai que ne ki nga défier dafa waroon a bëre ak contrat liyeetu leen mm-hmm. mais mën na nañoo fexe ba combat bi am. Mm-hmm. ñu gis ni barki démb génn défier ki nga xam te ne moom mooy Lac de yow nga taxaw défier Balde Balde bi est-ce que xam nga Ama Balde. waaw mais yow ñun dañ ragal loolu yow ñun ragaluñ loolu de <laughs> waaye dama ne daa duggati duggati su may adversaire ñoo fa nekk te damay damay bëre ak ñoom ah Pikine dugg naa fa dugg naa fa Pape Tine daan fa sax loolu dara ci làmb. waa non làmb noonu la làmb daan naa fa quatre personnes sax Guinée làmb noonu la mais du si yooyu du si dara mais moom bon day am habitude yu am chance des fois may bëri ay ay poulain mu indi ñëpp ma daan leen kañ soxu naaru sogaas Guinée donc moom na taxaw dëggal boppam rek ñu bëre waaw loolu dafa neex. sa combat ak Zarko. loo ci wax. dañoo def affiche boobu noonu te ñu bari nañ combat boobu dafa neex est-ce que pare nga nag. ndax Zarko dafa demoon Espagne ñëw trois ans bu ñëw ba rek mbay guy gi jël bàyyi ma ñoon daan leen te ñoom ñëpp daneen daan à la manière tey doom daan ko est-ce que pare nga pour bëri Zarko waaw mais <laughs> pourquoi du ñu pare ñun ay mbër lañ moo xam ne moom ragaluñu dara ci làmb ji waaye ban biteel dañ ñun dañu ragal loolu nga naan boppu mbaam ñun ragaluñu loolu doomu lébu lañ <laughs> waaye yow yow yow yooyu kooku day waay théâtre jar ko day théâtre nii rek. du waay du waaye dama ne yow day théâtre laa la wax du salaamaaleykum. Oh, dama ne du salaamaaleykum ba pare il faut mu attirer aussi gars yi seen attention si dara rek. Mm-hmm. aussi xaw na dal jotaan si suma combat ak moom ah. gars yi nañuy bàyyi nañu rafetal ay diggante xam nga lan mooy rafetal diggante yaa ngi ma koy laaj sànq si Eumeu Sène dinaa ko wax aussi ki nga may tuddal noonu ah. muy eh, gis nga nit ñi dañuy ànd ànd bu rafet mën nañu ànd tey suba li xew suñu borom moo ko xam ah tàggale ko mais dañuy gis ne saa bu ñu ko tàllalee rek dafay attaqué ki nga xam ne démb moom la doon moo ko jaraloon lu nekk muy Modou te yooyu rafetul aussi di ko wax aussi Jordan ay nit mën nañu ànd ànd bu rafet mais bu ñu féewaloo aussi jarul ay waxante bu ñaaw parce que rafetoon na waaw te góor sax dafay war a oytu mu ne weex na ba si yàgg mu jékki-jékki ne ñuul na góor day fay oytu dafay oytu yooyu diggante yi dañ koy rafetal Fatma dañu max yow mën nañ ànd ànd bu rafet suba ñu féewaloo mais warul tax man ma lay yàkkalu ñaaw loolu nag leçon la pour man pour àdduna ñëpp yee nañu rafetal diggante yi waaw mm-hmm. ah, ba nga ci ñooñu mais nag sa diggante ak nga xamante ni laajoon naa sa rek da ngeen ma daa nekk ci kii am problème mais Moussa Ndoye yéen ñaar combat bu neex la. wax naa la Moussa du ma si wax dara Moussa déggoo li ma la xanaa du ma si wax dara Moussa nee na doomu daangu 100 millions bëriwul ak moom jéen kay de 100 millions bëriwul ak moom nañ jëli père Balla Diouf suñu grand Balla Diouf <laughs> wala Liiru Diat. mais ku la bëgg a bëreel. kan la bëgg a léegi wax ma kan la bëgg a di cenc rek. déedéet moo dañoo mën a cenc lu mu ñu cencee ëpp ñu victoire ëpp ñuy victoire daanu ci làmb ku ñu daanu. waaw non. la bëre moom ñëpp ku man waaw que yooyu waaw yow jugal foofu nañ ko jëli Balla juuf ak suma père Lirou Diane ah wulli ñooñu nañ ko jox ñooñu mu bëre. ñooñu la bëgg a boo bëggul bëre doomu daangu cent millions nga ne bëre woo te ñun alal moo ñu fi bàyyi. jéen kay de cent millions nga ne bëre woo kan nga bëgg bëre. buñ ko bu buñ ko fukki waatee ñëw. dafa bëgg revanche moom moo daanoon Modou Anta dafa bëgg maire revanche Modou Anta. moom laa est-ce bëggaatul loolu. dañ ko joxaat mu bëre <laughs> saa jëlaatal Modou Anta ngeen bëre waaw. di ko bu baax a baax sama xarit bu bees bi léegi su ma ñëwee dàngu rek moom laay seet si muy mareem borom jus yi neex yi borom ndox borom ndox yi sedd yi. mooy dëgg yàlla suñu jabar ju baax la. yàlla koor gi lañ ko teral nañu moom wax dëgg yàlla defal ñu ay teraanga yu am solo koor gi yëpp ah fii lañ ko paase sa guddi fii laa doon nekk waaw mention spéciale ah moom ak jëkkëram di nuyu famille bi kër gi yëpp ah njuureen gi yëpp suñu père papa Albouri xam nga jël nuyoo rek jox ko Jib Sarr ah. mu jàllale ñu ko fépp ak soxnam Khady Guèye ah, waaw. ama neex bi nee na ñaar yéen a doon yéen a doon entraîné xam nga mu blessé loolu peut-être duñ ci sori ndax moom war nañoo waxtaan ak moom mais loolu euh, yéen ñaar yéen a nekkoon blessure bi ndax ñi ñi ngi naan blessé wul. waaw ñi ne dafa daw mais côté blessure yooyu du ma si mën a sori parce que li ma si mën a wax daal mooy xam naa ne ama neex dafa dafa blessé si si combat bi et jour bi muy blessé man ak moom ak góor gi étudiant ak euh, Gamou Gueye ñoo doon entraîné et ñun sax ñoo ko yóbboon jour boobu. hôpital clinique Tunkara bu Kër Massar loolu moom lu ma mën a wax la quoi. amaan mbégte contentement pour yéen ñi doon suivre sur Kewel Info ak Lamb Diaspora ah, <laughs> ah, doomu dàngu lañ dalaloon ah, ah <laughs> doomu dàngu lañ dalaloon. si waa kër gi ay ruube rek di wax lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw mais di sant àdduna ñëpp di gërëm ñëpp. di sant Ousmane Ndiaye bu baax a baax suma di jaay jooju ah waaw moom jàpp na ci affaire yi ci lépp. maam Bukari Samb aussi ah ñu ngi koy sant bu baax a baax moom boobu mu jàppee ba léegi tegul tànkam kenn du moom ci ci man ah Amar Faye Rijaal waaw kooku moom tëngeej gépp lay lay maanaam tëngeej ko gën a lu ne Amar Faye Rijaal jàpp na si bu baax ah Ibrahima Gattuso à travers Papa Gueye Gattuso ñu ngi lay siyaar bu baax a baax jàpp na si bu baax a baax baax a baax a baax a baax a baax ak sama baay Fall yi aussi du ma leen fàtte ah Baye Fall yu tëngeej yëpp waaw. daar daara raxmaan dàngu ñëpp daal bu ñu ñimee rek dañuy fàtte mais Baye Fall yi fi nga xam ne ñoo nekk dàngu seen baas ak seen gars yëpp ñu ngi leen di béggee ak waa tiim tànn béer bi ñoom mooy ñu nooy ñi ñu xam nga ñu ngi leen di waaw di leen wax ne incha allah nañ leen defal ay cant yu am solo waa tànn béer yéen ngeen tànn béer man si Baye Fall yi laa <laughs> si Baye Fall yi laa bokk Issa Diakhaté ah Issa Diakhaté aussi euh, président PDG kii nu mu tuddati Maya School ñu ngi koy béggee bu baax ak mbër yi ma doon jàppale contact yëpp waaw gàmmu koy aussi suma chef boobu maa ngi bu baax a baax a baax gàmmu moo jaxate waaw ñu ngi sant daal ñëpp ñëpp ñëpp suma jigéen aussi Ayta Diagne ah suma jigéen Ayta Diagne jàpp si affaire yi bu baax a baax su amee combat dafay bàyyi ay activité am yëpp nekk ci nekk ci man nekk ci man quoi donc daal ñu ngi sant ñu ngi sant ñëpp di leen di leen gërëm vraiment ak suma euh, petite sœur aussi Aram Cumbe Aram Cumbe aussi maa ngi koy gërëm bu baax a baax moom su ma lakkal la daal waaw ah, mais daal comme ni mu ko waxee rek maa ngi gërëm ñépp booy njaay jël nuyoo bi aussi amateur yëpp jël nuyoo bi rek jox ko booy njaay Mar Ndiaye mu joxal ma ko amateur yëpp yëpp yëpp Fallou Ndiaye xam nga bul dof <laughs> Fallou Ndiaye men waaye Ndiaye pro ñu ngi koy on oh, borom le 29 ah, waaw moom na ko yàlla defal jàmm rek waaw suma frère aussi Boubacar ñaa suma rak ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm maam góor jasaaka waaw moom tamit waaw maam góor jasaaka da si maanaam tëngeej la gëm moom lu dul tëngeej mooy loolu tëngeej la gëm te li mu gëm rek lay wax ñu looloo tax mu ñu gën ko sopp daal mais daal ñu ngi gërëm àdduna wërngal képp di nuyu dàngu bàyyi ñu benn kër <laughs> bàyyi ñu benn nit ñu ngi nuyu ñëpp ah imaam abu aussi jàpp na si affaire yi bu baax a baax a baax ñaan yeeg yëpp ak abu maam alsaan kulaar imaam yi nekk dànk yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di sant àdduna booy dafa ndànk rek <laughs> pareegu ba combat bi ñi si jàpp dafa dafa bari sama côté papa aussi wax nañ dëgg dañuy kaas rek parce que dama leen di fàtte waaye yow fa jël nuyoo bi rek jox ko suma papa Pape Fall Dieye chaque jour mu aalu ah ak suma papa mbay Donné ah. yoof ndar maa leen gërëm bu baax a baax a baax gis neen ñaan yeeg yëpp agsi nañ waaw mais daal ñu ngi sant àdduna ñëpp la yaay mbërgal yaay mbërgal la yaay yaay guddee fooy fanaan